weeru mag bi ñu nekk di shahr ramadan al mubarak ñu toll ci mujj gi di fukki fan yu mujj yi fukki fan yu mujj yi nag ni ngeen ko xamee moo ëpp solo ci at mi yëpp rawatina ci weer koor wu tedd bi nga xam ne lépp a baax waaye fukki fan yu mujj yi da cee gën a ràññeeku ba tax na yaakaar naa ni fépp foo dem ñu fay di diine tey loolu la ñuy jiital mooy nu gën a farlu ci jaamu yàlla ñu doon def ci ñaar fukki fan yi ko jiitu te xam ne bu la rawee mënatoo ko amaat li fi déwén te kenn ci ñun da ko wóorul ba xam déwén dana ko fekkam jett moo tax kon ñu war ci laabilante bu baax a baax te xam ne xéewal la goo xam ne yàlla moo nu ko may ñun xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax bisa ngi ci boo xam ne ku yàlla dogal nga dajeeg moom def ci lan ca war a def dana mel ni dundoon nga juróom-ñetti fukki at yu topp yoo xam ne lépp danga koo jaam yàlla yàlla nangu muy laylatul xadar ci laylatul xadar ni ngeen ko xamee yàlla daf ko dëxëñ dëxëñ ci bis yi eh, ci at mi ci weeru koor yi waaye nag ki nga xam ne moom la yàlla yónni woon mu daan leeral diine ji di yonente bi sallallahu alayhi wa waxoon na ne dee leen ko sàkku ci fukki fan yu mujj yi ci fan yu tool yi fan yu tool yi mooy nit fan ak benn ñaar fukki fan ak benn ñaar fukki fan ak ñett ñaar fukki fan ak juróom ñaari fukki fan juróom-ñaar ñaari fukki fan ak juróom-ñeent yooyu yëpp boo xoolee tënk boobu sëriñ bi ñee sëriñ bee ko def ci sëriñ bi da koo nettali sax dana ci dikk kon daal li am solo rek mooy laylatul xadar moom borom xam-xam yi sax dañuy wax ne day wëndeelu ci fan yooyu maanaam fan yu toog yooyu da ci wër waaye lu ci mën a xew li gën a wóor mooy guddi li des ci guddi guddi yëpp ci weeru koor yi nu farlu ci bu baax waxuñ rek guddi yi waaye bëccëg bi bëccëg bi ndax weeru koor guddi gi ak bëccëg bi lépp ci weer wi la kon ñu farlu ci farlu ci mooy di ci def lu baax di ko ci wax di def li nga xam ne mooy dëgg-dëgg koor ndax koor buñ ko waxee rek ku ne xam ne ne jubluwuñ ci kii fa mar rek maanaam fajar ba jant sopp waaye koor dëgg-dëgg mooy saw cër yëpp di jaamu yàlla li tax yàlla bind ko mooy làmmiñ nga ci wax lu baax di ko ci def di tudd yàlla di julli ci yonte bi sa tànk yi nga ciy doxu bokk di ci seeti ku wopp di ci gunge ku faatu sa làmmiñ nga ciy téléphoné say waajur yi nekk Sénégal wala sa bokk yi nekk fii di ci waxante ak ñoom lu baax yooyu mooy koor gi mag di jàng alxuraan lu gën a bari li ko doon jàng di jàng xasida di tudd yàlla loolu mooy def lu baax ak di yéene ñi ñëpp lu baax ci tuub ci rawatina tuub ndax kum ci doon ci ñun ba nga juddoo ba tey am na foo yoo def yoo xam ne daa mat a tuub tey sax yàlla moom boo jàppoon ne ci dara yi mënoo jot ak xam ci moom ba tax na waxtu bi daa war a tuub tuub nag bu dee baax waxtu bu ne rawatina fan yu mujj yi nekk ndax fukki fan yoo xam ne loo ci def ci lu baax yàlla daf koy dañoo daf koy boo ko defee ngir yàlla ndax yonent bi sallallahu alayhi moo wax ne ku woor weeru koor taxaw guddi yi dinaa fi la te def ko te yàlla rek a tax ak it nga taxaw euh, guddi la yoo xam ne ci yàlla rek a tax yàlla jéggal na la sa bakkar yi yëpp ak jar na képp ku doon ci ñun nga farlu ci tuub. ci jamono yii rawatina jamono yii nag di fukki fan kon loolu rek lañ doon fàttali ci wàllu koor gi ak it xam ngeen ne muuru koor mooy laabal koor gi ndax woor ni ñu ko ni ko yàlla bëggee waxe ko ni loolu jafe na lool mooy sa cër yëpp woor xiif ak maram moo ci gën yomb kon nag bu ku ci bëgg sa koor yàlla mottali ko ci ni ko digle mooy na nga génne sa murum koor murum koor nag kenn ku ne na ko génneel kenn ku am dépasse bisu koor rek war nga ko mën a génne doonte amoo lay bu ko defee nag fii moom ñu ngi koy nattalee ci juróomi euro képp bopp ku nekk kon daal loolu mooy li ñu fàttali ci weeru koor bu ko defee tey ñu amaat fi tey ay gan ñu ràññiku muy Serigne Khady Mbacke bi moom Serigne Amar Fall Mbacke moom Serigne Baara ak Serigne Baara Touré moom Serigne Abdou Karim Touré Cheikh bu ñëpp xam ak sëriñ Serigne Serif Cheikh Ibrahima Fall Dieng bi nga xam ne euh, borom xam-xam la ñu waxtaan waxtaanal ci xasida gu mag bu ñuy wax maraaxib jaaribatu maraaxib kon xam naa ne ñu ànd rek euh, teewlu leen yaakaar naa dañ fi déggee lu nu a jëriñ tey ak ëllëg noo ngi euh, wëlbati ko it di wëlbati ko di ñaanalaat di jaale suñu mbokki Baye Fall yi ñàkk Serigne Fallou Fall ca Serigne Modou Xaban waxoon keroog ba ñuy def levée de corps ba ne tey jii nañ ko wàcceel kaamil wàccee lañ ko kaamil ba noppi ñaanal nañ ko yàlla na ko yàlla doole xéewal te waaw sëñ Cheikh Khalifa noonu la koy seere bu baax ndax yaay mbokkam ki gën a jege te jullit ak moroom ja lañu war mooy bu kenn jógee ci ñoom ñëpp defal ko euh, jaal ko yàlla yërëm ko te bàyyi leen fi ngeen ñaan ko yàgg ko ñaan kon noonu koy euh, jaal yoonu Baay Faal yëpp di ko jaal yoonu murid yëpp di ñaan yàlla di jaal kilifa yi fi bàyyi ko ndax xam nañ ne am kilifa yi fi bàyyi ko ku dema ni sëñ Abibu Mbàkke xalifa sëñ sëñ Mandumbe bàyyi ko nag fan yi ak suñu as gede xalifa Daaru Salaam ñun ñëpp yal nañu yàlla euh, teeru ci àjjana ñu gën a kawe ci daraja yi Seexu Xaadim kon daal du ma guddal dama doon leer nag tey ne foofu lañ toll kon ma bàyyi kilifa yi ñu continuer ci waxtaan bi kon bisimilah sëriñ bi.